mbokki internet yi dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fés ci xibaar yi daal di waxtaanee coow la nga xamante ni daal dinay am ca péncum ndaw réew ma ginnaaw député bi nga xamante ni nag moom moo di Amy Ndiaye Guèye kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko daal di koy teg ci kaw ki nga xamante ni nag moom moo di Serigne Moustapha Sy njiital Moustachidine wala Moustachidane jàppale ne nag coow la ba tey njawanke wéy di de soog xam bi nag ginnaaw kàddu yi ñàkk teggin ya nga xamante ni nag daal dina koy teg ci kaw kilifa diine googee muy xamle daal di ne nag la mu waxoon lépp defu ko dafa ne woon bu ñu jàpp jàppee Khalifa Ababacar Sall ñoom ñaar ñooy àndandoo fële nga xamante ne moom moo di ca ndungu siin wala soo amee say jinne wala ay rab yoo xamante ne mën na fee jëlee kii di Macky Sall kon nag war ngaa mën a am ab sécurité boo xamante ne doy na sëkk ngir ñu daal di lay sécuriser kàddu yooyee nag daal di nay naqari taalibe yi nga xamante ne ñoom ñoo fare ak Serigne Moustapha Sy waral ba nege ni démb nag lañu ñu daal di def du leen rek lu dul dem ca bunt pencub ndaw réew ma di ca assemblée règlement de compte ak moom am Ndiaye Guèye nag kàddu yooyu mu ngi ko yëkkati woon ci examen budget bu ministère bu intérieur jàppale ni kàddu yooyee bam ca noppee ba tey njiital Moustarchidine ba Moustarchidaat ay taalibeem jamono ji nag fu ñu toll ñu ngay naqarlu ba ñu demee ci buntu pencum ndaw réew ma bu ñu sukkandikoo ci Les Échos yéenekaay ñu ngay xam ne nag daal ne la ñu bëggoon rek mooy jàkkaarloog député bi faree ci Benno Bokk Yaakaar ndaxte kii di Amy Ndiaye Guèye dafa daal di offensé seen kilifa diine mu brigade d'intervention polyvalente di waa BIP ak ñii di waa police ñoom nag ñoo daal gaawantu escorté ki nga xamante ni moom moo di député boobee daal di koy jagat jagatee yóbbu ca këram daal di tasaare nit ña waaye nag ba tey bu ñu sukkandikoo ci Les Échos mu ngay xam ne ne taalibe yooyee ba ñu mooy bépp oto boo xamante ni gaare na fa ñu daal di koy songu daal di yàqate yooyu le oto daal di wane seenuk maire ginnaaw kàddu ya nga xamante ni nag député boobee daal dina koy yëkkati waral na sax nag ba séance ba doon am dañu kaa daal di dagg li ko waral rek mooy dañuy sàkku ci ki nga xamante ne moom moo di député boobee mu daal di taxaw daal di baalu àq bu ko deful rek ki nga xamante ne moom moo di groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di Omar bi loolee faree ci kujjekk politique ga ñoom examen budget boobee bu jëwriñ gi yor wàllum kaaraange biir réew mi dañu ko daal di mujjee interrompre maanaam dañu ko daal di dagg ginnaaw kàddu yi nga xamante nag jàpp nañ ni dafa ñàkk teggin lool te kii di Amy Ndiaye Guèye daal